raasa yow la góor yi faas sakkan ñi ñi tiwel xarnu bi bàyyi sëriñ Saaliwu mu jël way bañ a selaw guddeeg ba cëpp bañ a nelaw bañoo ñëwaa way a ceraw ngir dum xarnu bi Cheikh Bamba xar baax la sëriñ nga wuti ngaa këriñ wal yoru yaarew mariñ ca kaasa man dal xarnu bi suñ Tuubaa man aw ma maqaamaam di la aw ma maqaamaam salaam a ñëwee xarnu bi te jii ma wax ba na tiraat ndax yaa ma def interprète yaa fa bi xam-xam ñu yiriit ci saa xool ci xarnu bi sëñ Tuba mbàkki balay sa man bu ma tànkam su ñaan ngir lii ma bon tey ka ñaan lii murid yëpp la ko ñaan ngir ba ko dekkal xarnu bi jooyi perantal la ñuy jooy ay sëñ Tuba boonu foofu leenu ñu ne waay ku ñu fi yefal ba ñu fi guuy mu delu naatal xarnu bi ay sëñ Tuba sëñ Tuba mag su daanoo garab noox xob ya lax Cheikh Bambay ndang jàmbal xarnu bi géeb gu mag su ne jirim gërëb bi ndaw yëpp ne jirim meññeen ma say mbir ma ëllëm li rekk dal waa xarnu bi allahu akbaru samaan jamono moo mën a safaan li déeg si réeg soofaan lañ daan di woox ñaa dal xarnu bi jaaraama Cheikh Ibra Fall jaaraama jaaraama jaaraama Cheikh Ibra Fall Ahmadou Fall Cheikh Ndiaye bilen jigi to ngaay kur jëg bàyyi laa la faal maami Cheikh Modou Fall Fall Cheikh Cheikh Ibra Fall lam yasal yuddi lisan wa fi asal masaka Cheikh Ibra Fall wa fi tariqati al-kamal ulam yabtu wasil jalal ila sabah xar na xar diggante njukki ak njàmbatin nañ daan daje di naan bu teel Cheikh Ibra yaa tax ba jël fa leer fan nga yaari yi pexe Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall njëriñ lak yow ku la bañ faal dana lak yowmal xiyaam kuñ fa lak da ngaa bañ a joxal bi Cheikh waay Cheikh waay Cheikh waay Muhammadul Falilu Alaaji Fallu Mbakke Alaaji a Alaaji Fallu Mbakke mooy folji folye te ku ko neex bu folle ngay fale ki mooy saahibul a ayal la daa ilo maalam yaqdur ahadun ku dem fa moo am xam ni kii mooy saahir bul fa dala moom raw na mbooleem ñu fi yaaram ci wàllu gu neex soo daan wax bii daan wax fuy naan lacc na la maamam siriif la siriifun bun siriifun siriifun bun siriifun siriifun bun siriifun siriifun mu jublu wax allah aji fan mbakki du xotti saakir mu tas yaakaar mu daw ko yaaj Mansour Ndiaye man maa la ko way ana Mouhamadou Mansour man maa la ko way lii man Sirif Cissé hakka saa man maa la ko way Cheikh Mansour yàlla nga ma dolli may ak xeewal ndax ma mën a way Cheikh Ousmane Ndiaye yàlla nga ñu dolli may ak xeewal ndax ma mën a way taxalu naa yàlla Cheikh Ahmadou Mansour dafa suñuy mbir baatinan wa baana wax balaa bi mi Moussa ànd ak Serigne Touba yal nañu sëriñ bi defal tawfeex